thé vert bi nga xam ne moo yëngal jamono Rio biscuit bi nga xam ne biscuit la bu saf sàpp neex ba pare am vani am chocolat Madaar ci gaam ak CT plus ci gaam bii day setal yaram leeral yaram kii setal kër gi ak lijjanti kër gi ci lépp saabu ordonné pour fóot jetol pour li nga xam ne moom mooy ay góom Noura Javel yooyu yëpp nag ci set Rio vanille chocolat Assura thé bi nga xam ne moo yëngal jamono l'écran bi neexal kër yi mbokk yi. Mariam Badiane xam ngeen ko moo nekkoon président mouvement des femmes de APR moom la ñuy seeti di wax na dédicace à Ndeye Bigué Ndiaye chéri Koli depuis lan may nga ñu koy nuyu di nuyu tamit bébé Bigué Sine ak euh, Aïssatou maire Sadio Sarr waaye di nuyu tamit euh, képp koo xam ne yaa ngi foofu di nuyu tamit euh, Amitia madame Sine di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waaye mbokk tamit ñu am mbégte contentement di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia jërëjëf jërëjëf Marème Badiane mi moo bëgg Macky moom mi moo fi nekkoon euh, présidente nationale des femmes APR ah. léegi moom dañ ko dindi foofu noonu madame Badiane maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay gërëm xale bu am yar nga. parce que tamit bu fekkoon ne dama nekk présidente des mouvements femmes. yàlla dogal nekkatuma ko. keneen na ko nekk. waaye liggéey ba ma fa liggéey moom wax dëgg yàlla mucc na ay ba président woo ma remercier ma. kon bu ñu ko joxee keneen rek te dama nekk ci parti ba tey sant la. jërëjëf jërëjëf madame Badiane. ndax ba tey yaa ngi yëngu ci parti bi. waaw. maa ngi ci parti bi maa ngi yëngu xam nga nag bu fekkee da nga dem ba doxal ba déroulé da bàyyi xale yi nga xam ne bu ñu ñëwee dangay ngay déroulé nga bañ leen yàqal ndax ñun ay militant nañ te moom la ñuy doon ba àdduna di tukki parce que Macky Sall moom moo ñu wan li tax ñu jàpp ko dëgg la waaw nga daan nga daanelee turu président Macky Sall ma war ko jëlaat waaw noo gisee nguuram bu bees bii nii place wu ñu jigéen ñi ci ah jigéen ñi jox na leen cër ci parti bi jox leen cër ci nguur gi ndax boo xoolee président Macky Sall boo compté am na ñett ba ñeent ba juróomi ministre kon ba tey jox nañu cër jërëjëf mu ngi noonu Macky Macky daal jàppal ne moom ma ngay liggéey liggéey bu rafet ñëpp teg nañ ci ba rawatina jigéen yi nga xam ne nekk ci parti bi kenn merewul président Macky ndax jox nañu cër kenn merew ko ñu amoon mbégte dalaloon ko fii nii ci pencum Sénégal moom Marème Badiane di ex présidente Euh, national des femmes d'APR. Ah, dañ la fa jëlee. Ah, dañ la fa jëlee moo tax ma ne. waaw waaw liggéey naa fa lu rëy nga toog fii tey. ñu am yaakaar ne boo toogee fii ñu posé la question bi segam jógee nga fële war nga nu mën a wax la fa am. mu ngi ci troisième mandat président Macky Sall bi. xam nga loolu président Macky Sall dafa ne bu ci kenn wax. Ah, mais jógee nga te waxoon ñëpp wax dëgg yàlla génn nañu. mais yow génn nga ña fa ñaa ña ca waxoon ñëpp génn nañ ci. ña ca waxoon ñëpp président dàq na leen. ña ca waxoon ñëpp président na leen loo laaj foofu ña ca waxoon ñëpp président dàq na leen yow waxoo ci mais génn nga ca. waaw mais war nga koo mën a tontu nag mandat bi. Eh, tegal ma buntu studio bi eh, tegal ma.